gannaaw bu ñu sant yàlla doole sant yàlla bu baax waaye di santaat yàlla mi ñu may kàttan ma ñu fekke benn dellu si waa di def waxtaane fajar di waa alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi daayiman abada alhamdulilahi kasi am kulli haalin di julli si yonente bi salallahu alayhi wa sallam ak waa kiram ak sahaba mi ak képp ko am yaa ngi topp si sunna mi ba ilaa yawm alqiyama yaan yàlla ñu yàlla boole si ñoom waaye yàlla ñu xëy jaama inde ko fanaanoo ko yàlla muy jàmmal yàlla muy defal jàmm yoo ko ñu sa yoo ko ñu sa wér yoo ko ñu tawfiq yàlla subhanahu wa taala képp ñu feebar nekk ci kër gi nekk ci bi fu waay nekk di jàmbat yàlla muy saafara yàlla ñu yàlla boole may aafiya yàlla ñu may aafiya may waaye julit yi jiitu àllaxira yàlla yërëm leen yaatal seen baameel yàlla def min riyaadil janna ndaw yàlla sàmmali aari la xale fi yaa egutuk ne si yoon siraatul mustaqim mucc leen si fitna musiba ak bala cheytaan war sagal xam-xam war sagal leen liggéey war sagal aada doodu ju baax jigéen yàlla sàmmali yàlla boo ñu dafa ñu xewali àddina xewali alaxira mucc leen safara mbokk ñu yaa fii si daaray Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jàngalekat moo boobu ba léegi ñu continuer si waxtaani tawxid mooy kéenal yàlla subhanahu wa taala nga xam ne yàlla subhanahu wa taala loolu la yónni yónente yëpp yàlla subhanahu wa taala mu ne an abudullaha wajtanibu taaxuut moo ñu jaamu yàlla moom dong waaye mooy ko lépp loo xam ne daf ñoo jëmee si lan bokkaale wala shirk mi li nga xam ne dafay maaba jëf ak jëf nu mu baax baax baax baax si ni ku ni ki defee bokkaale rek bokkaale boobu dafa yaaxa jëfam yu baax yooyu bon loolu war naa tax fi ma ko jullit yi ñun ñëpp ñu war a gën a góorgóorlu gën a sàmm suñ diine gën a sàmm suñ akida suñ pas-pas xakkañ te lan moo ñu ko may mooy tawxiid ñu de ñu ñëpp ñu delluwaa suñu boppa si yàlla subhanahu wa taala yàlla gënal ñu si lu nekk yonent bi salaa sallam gënal ñu luñ mun a am si kaw suuf yàlla ak yonent bi salaa sallam moo ñu ko war a gënal moo ko julite ñu leen xadis yonent bi alayhi salaatu salaam di xadis imam buxaari yonent bi alayhi salaatu salaam di wane salaasa man kunna fihi wajada bihinna xalaawatul iman an yakuna allaha wa rasulah ahabu ilayhi mimma siwahuma وأن يحب المرء لا يحب إلا الله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن ينقذ أن يقذف في النار الله أكبر ينبي عليه الصلاة والسلام من نتم بيرانغيني كوتي نيك ريك امغا تشافكا مانام بانيه غوم يالا حلاوه الايمان من نيتي جيفا غيني كوسي نيكا كو نيكا سي am nga li ñu oy xalaawa manam tiak manam am nga dara bala nga xam hayam nga mos ko li nga xam moy gom yalla dafa am lu ñu oy xalaawa manam yeg yeg bi nga xam ne adama daf ko yeg si yaramam ci jaamu yalla ba kontaan xam ne deug alhamdulillah moom mu ci si jaamu yalla ndik lan jebal bu mu jebal yalla subhanahu wa taala bopam waaw mu ban mo si jitu أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما واو موينة جلد بي يا الله سبحانه وتعالى أكيون أنت بي بوغي بوغي سي يا الله أكيون النبي صلى الله عليه وسلم أمو درا لمسي ورا رح ولا لمسي ورا تيغو سبحان الله حديث بوغر حديث إمام بخاري بوكي جلدي حديث بي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه أحب manam xam nga léegi nga ne bugga mana waaye gën a bugga maanaam ismu tabdil mooy ne soppa naa waaye gën a soppa nit ki def xolam yàlla mu fees fa del ak kan yonte bi adamah, salaatu wasalaam ba tax doomi aadama bu ñëwee si pas-pas bugge bugge pour jaamu yàlla benn doomi aadama du am sa xol place ku dul yàlla ak kan ndax mbokki julit li ñoo dégg tay di tuutiloo yàlla di tuutiloo yonente bi alayhi salatu wasalaam si ay kanami mbooloo yoo xam ne ay millioni doomi aadama ñu ngi lay déglu subhanallah istiza te loolu moo yóbbu boromam mooy ne kofru maanaam wedi la yeefar la su boromam tuubu si wax jooju ndet yàlla kenn du ko foyonto yàlla kenn du ko tuutiloo yàlla amul morom amul maas yonente bi alayhi salatu wasalaam sax kenn du ko foyonto ba naafixa yi doon jéem a tuutil yonent bi salaa sallam ak waa madina yi maaka yi nga xam ne dañ gaadaa yoon ba gaa yi jóge si azwatu tabook abdullah ibnu ubay ibnu salul di njiiti munaafiq yi la doon wax wala in rajana ila madina mu ne suñ delluwaatee madina ñi nga xamee ne ñooy góor yi ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñi nga xamee ne ñooy eh, eh, naafexa yi ñu ngay jël ne ñoom ñooy góor yi ñu ne ñoom suñ delloo Madina ñoom ñu nekk góor yi nañ jël ñi nga xam ne ñoo jógee Maaka ñëw gàddaay si def leen si suuf ndig ñoo ñooy jaam yi kan la si jublu woon yonent bi salaa ak saxaaba yi jóge woon Maaka yàlla subhaana taala wàcce aaya si kaw jaarawul la yàlla rek a kawe yonente bi ak julliti subhanallah gis nga loolu loolu mu ngi woon ne képp kuy wàccee jullit rawatina yonente bi aleyhi salaam yàlla laa tontu si aaya boobu ne yàlla kawe ak yonente bi ak julliti qul lillahi izzati wa lillahi wa rasuli wa lil muminin yàlla ak yonente bi ak ñi nga xam ne dañ gëm yàlla bon yow mi oote sa lan mola la war sikau jaral ci kaw suuf nga ne doomi adama bi nga gis do wala ki nga gom mo la wara gëna yoni yonente sallallahu alayhi wasallam mom nga wara tek ci si kaw yonente bi alayhi wasallam waxatuma la yàlla sax do tax mu ne an yakuna dafa war julit bi ci yalla bu mot sik ak bi alayhi wasallam kenen bokut nak nga ne wa an yuhibbal maru la yuhibbu illa allah sooy soppa kenen nak booy bugg keneen nag boo ko te yàlla tax kooku amul maqaama bu war a ebak yàlla amul maqaama bu war a ebak yonent bi salaa sallam waaye mun nga koo bugg te yàlla tax mooy kii laa wane yàlla ne yoon bi salaa sallam ne mu ngi laa jàngal sa diine mu ngi laa delluwaat si yàlla mun ngi la xamal tawxiid kooku nag soo koy soppa soppa ko te yàlla tax waaye kooku munta am maqaama muk muk muk muk ba ko war a toolale ak yàlla ak yonent bi salaa sallam la yàlla la waaw gannaaw bi nga xam ne cofeel ak sa mbugeel nekk na si yàlla ak yéen bi salaa sallam mu ne la doomi aadama bi nga xam moo nekk sa kanam doomi bi aadama bi nga xam ne moom nga xam nga ne waaw kii de bugg naa ko waaye nag dama ko bugg rek yàlla tax dama ko bugg yàlla tax ndig fanaan fa may jëmee yàlla la may xamal yéen bi salaa la ma sunna yéen bi salaa sallam la la may jàngal nga topp ko si loolu mu ne misaal bi wa an an yauda fil kufr mu ne nit ki nag war ngaa mu a sib nga bañ di delloo sa bopp si yéefar yaa weddi yàlla bi nga xamee ne yàlla subhanahu wa taala sowe na la yàlla subhanahu wa taala xeetali na la bépp boole la si xeeti yonte la muhammad salaa sallam muy xeet bi gën si xeet yi yàlla boole la si xeet boobu mu ne nag bul bul saagan mukk sa bopp si yéefar yaa mooy lan di tuutiloo yàlla di tuutiloo yonent bi salaa sallam mu ne nag na nga góorgóorlu ba bul doole waa sa boppa si jikko bi nga xam ne mooy jikko yéefar yaa lu tax yàlla subhana taala wa si aya ne wala tamutunna illa wa antum muslimun yàlla mu ne buñ sàggan mukk mukk mukk ba dee ñëw fekk nekkuñ ay julit julit axan mooy kan mooy ki jox boppam yàlla istislaamu lillah mooy ki jox boppam yàlla toppa si sunna yonent bi salaa sallam kooku mooy julli dëgga moo tax mu ne nag mu ne comme ni nga xam ne kama yakrahu an yun an yuqzafa fi naar comme ku nekk si ñun wallahi amul kenn ku bugg si ñun ñu jël la rek puus la wala sànni la si biir safara kenn bëggul loolu kenn bëggul loolu ku nekk si ñun da nga bugg am kër gu baax sa arjana ku nekk suñu bëgg nga dugg arjana kenn bëggul kër yomal xiyaam ñu jàppale di la bamax ci biir safara dila Ken puus si biir safara kenn bëggul loolu xataa safara ay aduna sa ku la fa puus nga ne ki suma non la rawati rek safara yi àllaaxira nga xamé ne an-nas wa ya taka taka ba ay doomi adama la ak ay her ñooy taka rek du fay muk di boy rek di joli rek yàlla yàlla musul safara yi amin ak safara ay aduna sa bon bokk lii mooy tawxiid lii mooy wétal yàlla lii mooy gom yàlla ati allah wati rasul toppa yàlla toppa kan yonent bi alayhi salaatu waaye nag am nga kilifa diine boo bugga ah kañ am nga kilifa diine boo xam ne mu ngi lay xamal si mu ngi laa delloo si yàlla mun ngi jàngal yàlla bugga ko te yàlla tax waaye kooku du mun a am maqaama muk mukk mukk mukk mukk ba em ak yàlla ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu ko gom rek yaa ngi gom yi mbiri yéefar te yàlla ne eh, hadis mu ne buñ delluwaat ba nga xam ne mooy suñ cosaan ma woon mooy lan weede yeefar waaw comme yàlla muccal nañu ba ñu juddoo si islaam yaroo si islaam yàlla ne wala tamutuna illa wa antum muslimun buñ saagat mukk ba dee ñëw fekk nekkuñ ay jullit pour yàlla ñu ne dafa jullit axan yàlla subhanahu wa taala yàlla na suñu yàlla yàlla suñoo jël suñu ruux yàlla na fekk ñu nekk ay julit axan yàlla nekk yàlla ñu fekk ñu jaamu yàlla bañ a bokkaale yàlla ak kenn yàlla yàlla subhanahu wa taala muccal si shirk bokkaale yàlla ñu yàlla muccal si shirk bokkaale آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين amin.